di teew si géej bi doon si seen borom caxu warul xeex borom baatu ne seen xet dañu sonal ay fausse douce di ñëw ak confiance yuuxu ambulance ñi laajal alliance xaju bonu ñooñu mbokk jibri doo mu daw fu laa jaay da xaar jibri bi samp ñetti mbaar kon nag ñi nga da borom ñi nga la ñuy jóge bëgg liggéey la ñu gëm ala directeur mais ya jaar jibril liggéey moo koy jaaj si nga dëkk la ñu dëkk borom liggéey loolu la bëgg am loor ba gorom dë dee ni ñaay ba dee ni géej lëppër moo koy yëngal gësam lëppër moo koy yëngal gësam lëppër ñëw na dafay yëngal xajal leen ko waay ñoom ñoo bare ba seen yëfu kawe

ñu ñëw aku yàq ma defar da nga bëgg mën sekian datang waaye di nga dee lu muy def coono la teg mu am jëfandi mu lu neex yàq lu bees may way ñoom ñëpp di bég toogal si kenn di bu faas loxo si poos bi ñu bëgg si tama nga di si mun marché euh, soit kuy jaay moo fa nekk wala kuy jënd lan la ñuy jaay walla lan la ñuy jënd ay légumes wala yàpp wala jën nee naa maar day taali ku feebar boo sañoon dox ndànk dem ci hôpital bi poste de santé bi faju nee ngeen amul ay garab nee na amul infirmier wala médecin du loolu la wax xale yi dañuy dem école ngeen wax ñi am BFEM fu ñuy jàngee tëngee Bambilor tali bi baax na wala baaxul baaxul baaxul là ah. voilà sànq tamit dégg naa fi ñaari classe école arabe d'accord d'accord léegi euh, tool yi tool yi lan lañ fay bay du rek ngeen fay bay ah waaw ma fi

ñu des politiciens yi ci man mi la wax ma ci ñu ñuy Nous di ñu suñuy conscience par xaalis mais bu boobaa tay tol bobu nga soxla wala un ingénieur bi nga bëgg ci mom mu war la taxaw mais am parce que da nga permettre politiciens bi mu jox la te bu la amatu lo ci mom parce que jox na la nga ko sa carte mais bu na la ndax yow ya lor sa dom yow ya lor sey seut yow ya lor sey jarbat kon bëgg soyons conscient dama bëgg ñu xel parce que xel mom la yalla gëna ñepp ko am xel ñepp ko am dama ñu raisonnable ñu dañu am ay dom suñu yaay aussi dañu am ay activités soit ñu dem tool soo ñu dem marché wala ñu dem Dakar mais yooyu yëpp bu yombulee li ngeen bëgg ci seen doom yi du ngeen ko am yéenay choisir nag ndax doomu aadama dafay tànn te boo tànnee na nga assumer li nga tànn soo permettre politicien bi ba mu nax la yow yaa jël sa ay responsabilité mu nax la mais du politicien bi de man parfois du ma xas politicien bi lu politicien def rek nit moo ko def loo kon la ma bëgg ngeen xam ne ñàkk politicien bu baax ñàkk politicien bu mën a taxaw askan bi moo tax Talib Diène bii du gaaw a pare. ñàkk politicien bu baax ñàkk politicien bu mën a taxaw askan bi mooy tax poste de santé bële du dox na mu war a doxe ñàkk politicien bu baax ñàkk politicien bu leen mën a taxaw moo tax lycée bi nga xam ne dañ ko fi war a def du ngeen ko gaaw a am maa ngi leen di wax benn affaire. population commune bi juróom fukki djuni ak juróom ben ci ay nit mo fi nek lolou boko xolé manam commune bi soxla na médecin soxla duñu infirmier manam ni nit di yoko population bi di yoko dem na ba dañu wara am médecin waxuma la sax ben ndax infirmier dollu niveau population bi dépassé nako kon hôpital war na fi waaye tey mënuñu leen wax sax ban suuf lañ ko mën a def donc donc li ma leen di wax mooy nañ def attention chômage bii seen doom yi am sunu rakk yi wala sunu mag yi mënuñoo liggéey dara waralu ko lu dul am koo xamante ne amul xam-xam. waaw parce que bu góorgóorlu woon mën naa def Touba am boo xamante ne ay usine lañ fay tabax dangay ngay tracer bi rek nga dem uti ji ñi am xaalis ñu ñëw tabax ay usine mais bu boobaa seen suñuy doom ñoo ciy liggéey suñuy rakk ñoo ciy liggéey bu boobaa jigéen ñi duñu dem fële ba Philippines ni dañ fay liggéey kon dama bëgg ngeen xam ne yëf yi lu baax la yëf yi farata la beneen bi nee na ñoom maire yi dañuy roose yëg naa lépp xam naa lépp ñun liñ fi bëgg a def bëggunu saaga doomu aadama yi di leen jox xaalis naan jàppale leen ñu ndax loolu saaga la jël xaalis jàppale ma mu jaay ma sa carte saaga la mooy insulter li ñuy wax tubaab insulter sa intelligence sa xam-xam dañ ko saaga maanaam yow xamoo dara dof nga jaay ma sa carte am cent mille yi am un million yi léegi ñun li ñu xalaat mooy sunu yaay ji di dem tool di roose ñu jéem a xool nan lañ koy oyofale toolam boobu du ñu ko wax mu bàyyi tool ndax tool baax na ndax tool farata la li ñu bëgg a teg fi benn banque communale banque boo xamante ne au moins sunu yaay jooju mën nañ ko accompagner mu jënd ay moto pompe bu jëndee moto pompe xanaa doomam dina yorte ay rasuwaal di roose yaakaar naa boobu moo gën que ñuy jël xaalis bi di ko def si lafu séer wala di ko def ci poche donc luñ lu ñu bëgg mbay mi sax fi légumes yi ñu daan gis muy bëri ñu di ko gàlla ba mu fees dal ah nget gu neex googu ak na mu daan verte ci àll bi yëpp rafet naar comme li ngeen daan tooñ waa gorom lekkati xaal yi mais loolu amatuñu ko lañ ko namm tey da ciy am xaalis kon loolu il faut ñëwaat te mën na nekk dama bëgg kon ñu xam ne njàng mi farata la il faut nu góorgóorlu déen ñaari déen kër si déen yi géej kañak ñooñu dañu war a am lycée pour ñu bañ a demati bambiloor di fa jàng bambiloor aussi am seen liise ñoom tamit waa gorom ñu am seen CEM waa gërëm de am seen CEM keneen ku war am CEM tamit nga am ko loolu mooy dëgg loolu mooy yoon ndax loolu mooy defar nit jàng mooy defar nit mais corrompre du defar nit day yàq nit day yàq ay conscience ah ñun nag am nañu projet bu sérieux bu baax sa jafe-jafe bi nga wax léegi dinañ la dimbali nga mën a ñëw si mairie ba mën a joxe sa xalaat mooy li mu doon wax léegi mooy la démocratie locale ñu ngi leen di woo le 23 pour ngeen voter te léeg-léeg bu ñu leen wootee élection yi di ñëwaat lañ leen di woowaat loolu jaaduwul xam nga lan moo war te jaadu buñ la wooyee au moins ñu permettre la chaque jour wala chaque mois wala chaque six mois chaque trois mois nga mën a wax sa xalaat ci nii mairie bi di doxee ñun loolu dañ ko bëgg a def créer fi site internet lépp luy information ci mairie bi ñu di ko fa jaarale comme ni mu ko def livre foncier teg deux conseils consultatifs pour que nit ñi mën a ñëw dénnu seen xalaat donc loolu loolu farata la loolu farata la dama ni nañu def attention mairie du tiaxan mairie boo nekké yow yaay le premier magistrat magistrat moy lan say njabot say population buñu amé soxla nga taxaw ci buñu amé jafé jafé nga taxaw ci lolu moy deug lolu moy yoon waye dama ni dañu nanguwul ab maire nit ñi am sen souf war ci war ci deug mu taxaw ndjay di dimbali ay ñoo xamante ne dëkkuñu fi ñu di ko di ko xaajoo dama ne loolu dakk na léegi ndax dinaa ko dindi ma ak équipe bi ma àndal incha allahu donc ma ne ma ne bu ngeen ñu votelee du ngeen ko ay ndaw lañu mais ndaw yu am responsabilité vote vote farata la wax naa leen lii aaju si vote sa wir gi yaram si la aaju njàngam xale yi si la bi sila aju mbey mi sila aju talibi sila aju cadre de vie sila la lepp sila aju la culture sila aju kon buñu tiaxan nañu bàyyi ay tiaxan tiaxan baxul mënuñu accepter ñu corrompre ñu et en même temps ngay demander ñu lay dimbali tabaxal ma école defal ma mënul and nit da ngay tan

xam nga xam nga ñun ñëpp nangu nañ ñi mairie xam-xam moo koy doxal dëgg wala déet waaw dama ne ndax xam-xam ci may ay mbana la xam-xam du ci may mbana dama ne nan jël suñuy responsabilité nun ci mbedd mii la ñuy wax te li ñuy wax ragaluñu ci dara intérêt nit ñi moo tax ñuy wax bu ngeen bëggee nag changement boobu bii mooy bulletin bu baax bi bulletin bu bleu bi am nag wi su ngeen bëggee ñu changer drastiquement laa la wax commune bi na ngeen tànn bulletin bi de ngeen bu baax su ngeen duggé ci urne bi ci bureau de vote yi di ngeen fa fekk ñaari kees bi pour vote commune bi la bi pour vote département bi la li leen jëkk a soxal nag li leen gëna a soxal mooy vote commune bi kees gi nga xamante ni fa la ñuy voté pour commune ngeen voté ba pare jël bulletin bii bulletin bu baax bii ngeen tànn ko dem sa mbañ gàcce ga dugal ko ci enveloppe bi benn moom rek ngay jël de dugal ko ci enveloppe bi boo ñëwee nga laaj lan mooy kees ak commune bi ñu wan la ko nga dugal ko foofu bu ko defee jàmm am bu ko defee développement am bu ko defee xale yi jàng nekk ay docteur nekk ay agriculteur nekk ay médecin nekk président de la république salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf baati bul si tiit bul si daw Robert yëngal xajal leen ko waay ñoom dañoo pare fa seen a fu kawe yoon bi ngeen awe fa la leen di ñëpp di nawe rëbër si xale wala ànd ak doole ju bare dee njaay ci xare man gisuma ko koy bare rëbër si commune wala sàmm suñu moomin ne leen rëbër